nataalu juróom ñetteel at yu bari weesu nañu ay sëtu nooyin doon nañu ay xeet yu bari ibrahima ci ay sëtam lañu bokkoon moom it nit ku bëgg yàlla la woon te ragal ko yàlla dig ibrahima xeet wu mag ci ay sëtam ibrahima ak soxnaam saara amuñ woon doom wante gëmoon nañu li leen yàlla dikk bi ñuy am doom ay mag lañu ñu tuddee ko isaaxa yàlla digoon na kiraama yu mag isaaxa ak ay sëtam ibrahima am na yeneen doom ak yeneen soxna kenn ci doom yooyu mu ngi tuddoon ismaila xeetu arab moom mooy seen baay